ñoo ngi fii ci marché HLM Sourlaco bi dañoo am fii benn tiis bu ñu xaw a bett quoi parce que Mansour mi ñu dendal nii euh, sama client ñoo ñëw toog fii ñuy récupérer ñëw affaire yooyu ñu jékki-jékki ne ma am na luy xeeñ man leen ah xam naa gars yi ñooy passé affaire yooyu ndekete yow euh, place moo doon lakk mais affaire bi daf ñu bett parce que porte bi dañ ko wàccee woon man yëguma ci dara ki ma jàkkaarlool moment moo jékki-jékki yuuxu mu ne ma ah fii de mi ngi lakk ma ne ko lakk ci laa yóg yëndu noonu xool affaire bi tàkk bon ci laa jël ay bidon ndox euh, sotti fay gars yi ñëw ñoom xaadim ñii Ibrahima gars yi ci lañ ñëw jàpp ji ñu fay affaire bi mais vraiment metti na quoi parce que tamit teer bu liggéey ba heure bi xam nga war a livrer ay ñëw xam nga di jékki-jékki sa place lakk dafa metti te xam nga teer événement la am ñun événement bi yi lañ am fi lañ mën a profité pour xam nga rek euh, am lu ñu yóbbu kër ga affaire yooyu mais metti na lool ba metti yam parce que neexul quoi ñun ñi ñëpp ci ku mu daloon day metti donc donc bu dalee kenn ci ñun rek day metti ñii ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp la dal moom man boo ba léegi affaire dafa ma soxe quoi dafa dem ba sa bopp day metti parce que affaire moom boo boo dugaloon ci biir doo xam man maa jiitu ci biir maa dugg ci biir wut ay ndox sotti affaire yooyu waaw parce que moom dafa génnoon booyam bi dafa génnoon mais li tax affaire bu gënoon a garaaw mooy dafa wàcce woon bunt bi loolu rek moo taxoon mu affaire bi xaw ñoo sonal quoi. yéen ñëpp di leen wax ji suñu tiis fi am tey dëgg la met na lool met na lool ku ne da koy xoolee comme sa bopp su la daloon ndax ndax koo xam ni booy bu ndaw la gëm sa bopp di liggéey génn di jënd ay gantiir ñëw fekk sa place jeex tàkk ah too da xool si yow métti na trop nag waaw métti na trop ñu ne ñu ngi koy masawu baax di ko wax nag mu sant yàlla baax xam ni li li li li du ci moom du ci ñun. waaw day day loo xam ni dafa ñëw rek ndogal bu ñëw rek la waaye nag kenn suñu suñu sañoon nag du lu mel ni du ko dal waaw ndax ñu man mii nu ko am di waxee ba ma taxawee fee di jàpp ba ma jàppee taxaw laa ci laa génn rek gis gars yi nan leen ndox nan leen ndox ci laa ñëw ànd ak gars yi di wut ndox ñu ñu fay laqali fekk man soon nag fekk man soon nag mais nag looloo doy na waar lool ñu ngi leen di ñaan nag di leen ñaan di leen Mansour mi am na am na lu ko dal lu tiis bu métti bu ko dal di leen di ñaan di leen saaku ci seen doole ngeen may ko mañ ko may mu taxaw mu taxawaat waaw ndax lii moom wax dëgg yàlla dama koy xool ci man rek su ma daloon waaw am du ma am téeméer bi ma bëgg su ma yóbbu sama kër ñëw sa wàcc sama place bi génn ñëw fekk mu tàkk waaw di di jégalu nag di jégalu xanaa damaa mënta wax nag loolu looy sama problème quoi dama mënta wax waaye nag ñu ngi jégalu baax a baax jërë ngeen jëf asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen waaw ah, di leen di rafetlu tamit teewaay bi ci tiis bi am ni bi ñu dal tey di sant yàlla tamit parce que ñun ay ndaw lan te ay jaam lan tamit nekk ci yoon lii moom xam naa ne mënut a ñàkk suñun parce que yàlla moom mooy xool ko neex ci jaam mu def ko ko dañuy nag bu baax a baax a baax mënoon na gën a metti lool lool waaye comme nii la ko yàlla bëggee moom dañuy delluwaat rek jéem a xoolaat ñu ni defaat suñu yoon di sant tamit waa marché bi parce que gis naa ne ma taxawoo bu méttee dañuy dañuy ñëw taxaw bu neexee dañuy ñëw te ñoo xam ne samay moroomu maam lan waxuma la samay papa de samay moroomu maam mais damay ñëw ñu jàppee ma comme seen doom lu ma bëgg ci ñoom day yomb tey nag yàlla indi fi tiis bu mel nii ñu ñëw taxawu ma ñoom ñëpp kenn liggéeyatul marché bi instant yi téere yëpp ñu ngi taxaw parce que dañoo am lu leen na naqari ndax lan li ma dal ak ñeneen ak ñeneen ku ko dégg rek da ngay li ngay def nga ñëw waaw kon loolu rek sant yàlla tamit ñun du ñi nga xam ne xale yi fi nekkoon yëpp kenn amu ci ay gaañu gaañu xanaa ti si jàmbur waaw am na bëri bëri na nag moom lu yàqu moom loolu moom bëri na lu yàqu lool sax parce que bëri na bagage yi jotoon a pare seen boroom ñëwagul ba féete woon à côté mais temps yi lépp tàkk na ba jeex waaw mais nag sant yàlla daal xëy na nii la ko yàlla bëggee woon di leen sant tamit yéen waa si bi teew fii tey ñu leen di ñaanal tamit lépp lu ngeen bëgg si yoon bi rek yàlla leen ko yàlla yombalal. wax dëgg yàlla marché bi ñu ñoo fi bokkoon nekk ni ki daaw heure bi maa ngi fi woon vraiment Mansour mu nekk xale bu yaru nekk téer bon place bii man maa ko jox taxawu ko ba mu jot si te ba léegi nii man lay fay mu nekk loo xam ne bu ma ko yëgee rek laa bàyyi lépp lu may def parce que heure bi ku ne xam ne métti na parce que deux jours de tabaski vraiment am na ñaw yu pere yu yàgg-yàgg mais seen i borom dañuy xaar pour jot seen xaalis pour ñëw jël si ñaw yi yi pere ak yi pere gudd ak yi war pere suba yëpp lépp mu ànd yàqu lu méttee métti la. Euh, loolu bi mu ko déggee ci laa bàyyi lépp lu noonu def ñu assister ko parce que heure bii dafa dafa laaj assistance assistance bu baax a baax baax euh, parce que perte dafa métti surtout perte loo xamante nii si alalu jàmbur yu bëree bari la euh, vraiment engagement yu bëree bëri nga perte ko ak sa programme yi nga defoon lu ko gën a métti amul. kon heure bi nag ñu ngi ñaan euh, soutien ak fu mënta jógee rek ñëw taxawu ko moo xam côté bu nekk rek moo xam ci wàllu finance ak lépp psychologiquement dañ ko war a taxawu ak beaucoup de compréhension aussi tamit envers ses clients parce que c'est très important aussi tamit parce que lii moom ñëpp gisandoo parce que dafa génn ak dafa génn doon livrer ay ñaw euh, booy mi tamit génn am livration bu doon def alors que ñu wàccee porte bi lu war a xew day xew su xew ba pare nag ci ngi gis conséquence ni waru mën a def lii alors que moment bi nga koy def nag dangay ngay da aveugle da nga doo xam sax li ngay def su pare da nga ciy tiire li ci xew na xew na ba pare ñu ñoo gisandoo mais nag luy olof di faral di wax rek euh, yàqule mu gën yàqu waaw mais yàqule bi nag li tax mu métti mooy àll jàmbur yi fi nekk moo tax vraiment ñu ngi partagé ak moom bàyyi suñu liggéey parce que vraiment nekkatuma fii depuis un an mais bu ko déggee rek la bàyyi lépp lu may def alors que ñëw assisté ko parce que booy bu yaru la booy bu baax la booy boo xamee ni vraiment su doon vraiment ay jikko la ñu xool kon méritewul lii mais yàlla ku baax lay teg lii ñu ngi koy séddoo ak moom di ko partager ak moom vraiment di remercier assistance bi yëpp parce que ñëpp ngi bàyyi seen liggéey ñëw toog assister ko te jamono bi ñëpp xat président des terres il est aussi il est présent ñëpp ñëw nañ euh, ñoom Mbacke ñëpp ñu ngi fi kii euh, nu mu tudd sax Ndiasse Euh, mu ngi fi ak ñoom Bamb ak ñoom Ismaïla les doyens yëpp ñu ngi fi vraiment mu nekk loo xam ne ñëpp ko partagé ak moom euh, vraiment ñu si ñaan nag di si lancer appel képp koo xamante ni client am nga daan nga traité ak moom euh, ay at tey lii dal ko ñu xam ne lii nii la ko yàlla dogalee parce que même si tali sax da ngay dem di tukki wala di voyager toog toog ñu accident am na dañu xam ne lii vraiment volonté yàlla la quoi. kon loolu lañ si doon wax daal vraiment di partager ak moom moment bi métti bi daal vraiment. ñoo ngi nuyu taxawaay bi ñoom mbaam Bamba ñoom jëmm ji macha allah kenn kenn amul seen fay parce que nit amul lu dul àdduna bànneex moom ak naqar taxawaay bi taxawaay bi ngeen taxaw nii yàlla na yàlla fay. amiin yow mi nga xam ne yow yaa ñëw fii taxawu leen yàlla na yàlla taxawu. si barki yonent bi di wax Mansour maam ndaw bu baax la maam xale bu bëgg liggéey maanaam dara jomm la dana metti metti na nag maanaam ngay xëy di liggéey téer amulul événement bu événement jàllee dañuy ràññante rek jugoo ki daan maanaam da eh, metti na maanaam ñu ni gannaaw suba la julli am na ñoo xam ne ñi ngi war a jël seen ñëw am na ñoo xam ne seen ñëw àggagul maanaam nga ñëw fekk ñu la sa place mu ngi tàkk metti na mais sant yàlla la parce que bu bakkoon demoon lay gën a metti mais àdduna lépp loo gis li na noonu lay noonu lay doxee mais ñàkk tollagoo fooy ñàkk nag waaw lii tollagoo fooy ñàkk. mais dana metti nag mais da ngi taxawaat rek yàlla na yàlla teggi. yàlla na yàlla tegg yàlla yàlla teggi jafe-jafe di lu taxawaay bi ngeen taxaw am na solo trop am na solo trop mais Mansour di la wax ni la solo goo fooy ñàkke muñ rek yàlla na yàlla mooy xolum muñ. yàlla mën na tegg yàlla tegg yëpp barki yonent bi da koy teggi si barki rasulullah yàlla yàlla teggi yëpp di rafetlu taxawaay bi